ndax li ñuy wax si Ahmadou Bamba muy wér il a traversé à l'islam moom El Hadj Malick il parti à Gaaya dëkk bi ñuy wax Gaaya foofu la moom El Hadj nekk El Hadj Malick ñu ñëw nekk à Tivaouane Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ñu am ay murid lañu ñii ay tijaan ai lain lain nunjuk nunjuk sebab mani bang lain musuh musuh untuk bukan orang japa lah dong keren mami mau lain baik suami Hey, hey! Kaya ma, bukan Ale. ale Rendez-vous. Alors, way, way, way, Restez dans les rangs, monsieur le policier, racontez. Restez dans les rangs. What are you doing? Massagem. Massagem. deux ans. taxuma jóg xaaral waa deux ans laay def. de tegenwaar. اسمع انا باي خوري بك انت مبود وين انت مبود مين مي خوري Dang, tahu lin. Eh, ayo eh, si besi. Tahu lin.

fait une heure de temps pour monter. Non, non, non. non, non. <laughs> Il hein? vient d'arriver sans élève. Voilà. Voilà, ils sont courageux les enfants. Voilà ils sont courageux les enfants. Chers parents d'élèves, nous voici au pied de ce grand monument de la Renaissance. Voilà, les enfants sont là. Nous allons faire euh, ce monument du premier, deuxième, troisième étage jusqu'au niveau du pied hein, de, ce, grand homme hein, qui représente le monument de la Renaissance. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur et on va permettre à ces enfants hein, donc, de visiter, de voir tout ce qu'on a installé. Euh, c'est important, c'est très intéressant, c'est éducatif. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes venus euh, ici au monument, ce grand monument de la Renaissance, pour que ces enfants découvrent euh, tout ce qui est à l'intérieur. Merci. Et à tout à l'heure, on va se retrouver à l'intérieur. Merci beaucoup. Voilà, y nañ euh, au monument de la Renaissance donc les monsieur Thiaw wax sànq ci français moom laay bantu ci wolof rek mooy bon a nañ fi, manam, ay 6 heures yooyu xale yi ndekki ba pare ñu may len ñu naan légui yëg nañ ci kaw légui ñu ngi xaar ñi liggéey ci monument bi léegi ñu fayal leen ticket ñu dugg ci biir monument bi yéeg ba ci kaw visiter ko donc bu ñu jógee fii dañuy dem assemblée bu ñu demee assemblée foofu tamit dinañ dugg biir assemblée visiter fi député yi di toog ah lépp loo xam ne dañ koy voté assemblée bërëb bu ñuy ne dinañ dugg xale yi foofu visiter ko bu ñu fa jógee euh, ñu dem parc ba bu ñu yeggee parc ba ci la xale yi di añ ñu añ naan yu sedd yi noppaleku

motax bo sété buñ waxé sortie pédagogique amna parents yo xamné dañuy naan 10 000 francs cher na ci pop sortie pédagogique mais bo sété ki 10 000 francs bi mom lañuy passal sa dom Dakar Louga Louga Dakar euh ñu yore ko añ yore ko ndékki yore ko ay nanam buñ ci paré buñuy dogul monument bi xalé bu nek dañ lay fayal fayal moniteur yi buñ fa joggé dem assemblée buñ ñu yeggee parc ba aussi même chose lañuy def xalé bu nek dañ lay fayal fayal fayal moniteur yi donc donc bu ñuy ñëw non seulement enseignants yi dañuy ñëw mais dañuy jël aussi ay moniteurs ay moniteurs yo xamné dañuy dimbali ci encadrement xalé yi donc ñoñu aussi ku ci nekk dañ lay fay donc xalé yaangi ni ku ci nekk bu yeggee kërëm boko laajé dina la wax vraiment sortie bi machallah donc ma ngi sant ñep sant le personnel enseignant bu ñu àndal ak ay parents d'élèves sant aussi suñu caméraman bi ndaxte bu ñu xëyee ba légui fu ñu tourné rek ma nga fa waaw di ñu defal loo xam au moins bu ñu yeggee dinañ ko mëna a teg ñun ñu xool ko xam ne ñun demuñ woon ci yëfu caaxaan ndaxte sortie pédagogique si njàng la bokk xale yi dañ ciy jàng ay affaire yu bare baree baree baree bare donc fu mu ne nii foofu lañ toll ñu ngi toog xaar xaar xale yi euh, xaar xale yi euh, monument bi xale yi jóg ñu ñëw dugg ci biir donc ñu ngi xaar gars yi liggéey foofu bu ñu liggéeyee ba pare bu ñu ñëwee xëy comme ça ñu jël xale yi ñoom ñu ñëw compter ñaata xale la ñu wax ñu prix bi ñu fay fayal moniteur yi fayal caméraman bi fayal ñëpp ñu dugg dem visiter donc pour mu séance animation lañ nekk monsieur Thiaw mooy animel xale yi bon ça se voit que c'est un moniteur type moniteur là c'est parmi enseignants yi am na ay moniteur. man mii di wax je suis moniteur monsieur Thiaw moniteur là donc euh, voilà c'est ça Kumba 6, monitrice là donc ci peux boobu lañ tollu. ñu bàyyee de ba ci kanam kanam après ñu expliquer les yeneen mbir ñamaye gando ñama Kutok lor nyiri buna, bobo yoruko. Jola nyankatang, bobo yoruko. Sere cherek mum, bobo moko yor. Nyama nyama ye, bando nyama nyama ye. Nyama nyama ye, gando nyama nyama ye. Gando nyama nyama ye. Gando nyama nyama ye. Yegando nyama nyama yegando nyama nyama ye. Tuklor nyiri buna, bobu yoruko. Sere cereng bum, bobu moko yor. Jola nyang katang, bobu yoruko. E nyama nyama ye, gando nyama nyama ye. Nyama nyama ye. ye kando nyama nyama ye kando nyama nyama ye kando nyama nyama ye kando nyama nyama ye tataro kikuwa bobu mokoyo tata kujasa Mamu makoyor, Mushek bubato, Bobo makoyor, Tatamboja, Bobo makoyor, Muse jufange, makoyor, Pumba sisange, Bobo makoyor, Madam silange, Bobo makoyor, Pusa angini, Bobo makoyor, Nyama nyama ye, Banyo nyama nyama ye. gando nyama nyama ye gando nyama nyama ye jola nyankatan bobo yoruko tuklo nyiri buna bobo yoruko sere cereng bum bobo moko yor nyama nyama ye gando nyama nyama ye nyama nyama ye ye gando nyama nyama ye gando nyama nyama ye ele vyangini yena koyor ele vyangini yena koyor nyama ye nyama nyama ye musa angini moko moko yor muse jufange bobu moko yor muse jejunge bobu makoyor, tata tataro kengi makoyor, madam fayangi bobu makoyor, yor muse chawangi bobu moko yor sere balembum nyama nyama ye gando nyama nyama ye Gando nyama nyama ye, gando nyama nyama ye. Yes. ngeen tontu ngeen aw dama di nuyoo ñun dañuy nuyoo ndeysaan khai nuyo xale yaa ngi nuyo ndeysaan ah waa ni nuyo ñun dañi nuyo ndeysaan nuyo esoos a ngi nuyo ndeysaan waani nuyoo ñun nuyoo ndeysaan nuyoo xale ngi nuyoo waaw waaw nuyoo xale ngi nuyoo ndeysaan nuyoo juy dafa baax ci waaw nuyoo xale ngi nuyoo ndeysaan nuyoo xale yaa ngi nuyoo ndeysaan ay yaa sayda kaay woyal xale yi boole <laughs> xeesaay yaay dafa njooloon boole xeesaay dafa njooloon boole xeesaay xale bu rafet dem na boole doole yaay dafa njooloon boole doole dafa njooloon boole doole xare bu Eh, dem na adu fi ñëwati la ilaha yaay du fi ñëwati la ilaha du fi ñëwati la ilaha xale bu rafet dem na ay du fi ñëwati la ilaha yaay du fi ñëwati la ilaha du fi ñëwati la ilaha